برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان ndax lislaam diine la boo xam ne sitar la boo xam ne ci yàlla bi bindee mooy lislaam loolu moom taw la aw garab la yaa xam nag nga màgg fekk say mbokk nekk ay yuhóot mbaa ay nasaraan mbaa ay majuus mbaa yow sopp ba sopp sopp bu li amee du tey sa fitra mooy islam moo tax fitra boobu nag yàlla bindee boppam moo la bindee nit te moo bindee diine ji gis nga diine ji di nit lay doon li ngay pratiquer bi nag mooy loo bi waaye service yàlla mooy nit yàlla service mooy nit ndax yu taal Muhammad yàlla yónnee ko ci julli yi la ko yónnee ci nit ñi la ko yónnee kon julli yi ak koor yi asaka yi lii mooy loi islamique li mën ci boole waaye li muy fay ëllëgee wàllu atubar. mooy taw bi te taw yi aussi ñu ngay amee ci Seydina Muhammad Kaamil nu wahibu mawlaana bi ahmada nu'minu wa bi rusli wal amlaaki wa huwa kii al muhaymin mooy ci personne ay ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ci benn mazhar bu ñu xam ne ñëpp ñu ngi tuddee màkk foofu nag am na fa ndey ak fa bàyyi bàyyi mooy xabdullahi te xabdullahi mooy jaam yàlla te jaamee la biir mooy sëyt na Muhammad yaay mooy aminat aminat tamit mooy jaam yàlla te jaam yàlla biir mooy sëyt na Muhammad ndax moom yéen a def isra wal mi'raj daf ko tuddee subhaana asra bi abdihi laylan kon jaam nga ko tuddee fii ba mu demee léegi ci yàlla ba mu nekk yàlla di moom muy yàlla yàlla di moom moom muy yàlla yàlla ne ko innoo la dëgg la lii la Abdullah xam Abdullah mooy lan Abdoulaye mooy ku seey nekkatu fa yàlla rek nekk fa. seetlu na ko nii ñu saa yu def dafa seey ba amatul foo nekk jàmm yàlla mais bu nekkee yëg na moo tax ci saanu mbir yi mooy Seydina Muhammad gis nga toolu bi ñu nekk. xaaral bii nettir bi jiw yi ñu yàlla jiw ba sax mooy si dàmm mooy noonu la bés a bés xaasal kaw te saa sax salaam kon yonti boobu ñu ñëw ne ko bàyyi kii du morom ko yàlla bind kenn du ko tëkkale ak kenn ndax pour moom am ñépp day nekk ay majaas moom rekk mën dugg moom ma ne ku moom ku dee bala ngaa dund foog nga dem ci moom pour mu bëgg a dundal yaayam suñu amanu istajibu lillahi wa li rasul isa dahakum li ma yubbi ay bi mu ko ma ne kenn mën a am dund bu wér te du moom bu nekkee mag nga nekk fii nag ku dee bu dee kër Màkka nga nekk Sénégal yow ku dee ngeen te it ku texe di ngay doon ku texe di ngay doon ñun tam sa seen dafa xaram ci moom mu nekk barab wulus barab ñun daal Muhammad laa dafa xaram ci moom difaaqan mu nekk barab wulus barab barab yëpp moo ko fees tëb jamono yëpp moo ko fees tëb mbaa nekk tey fii الشهادة بسنة حق إنجهاجة لكل الفهود والمعاني وهو جلس صلى الله عليه وسلم ونقول suñu gisee ko koy fóotu di war nañ di du morom kat bokkuñ bokkuñ ma xam bokkuñ dara te aadama moom dafa dund dugg àjjana ñu nax ko li xam-xam moo gën ñu wuti xam-xam jàngil ba xam loolu jàngil ba keer da ko xam jàngil ba keer moo xam alquran xaraf par xaraf laaw ak arab xaraf bu ne nga xam fu mu jógee sax yàlla xam mokkal ko grammaire mantiq usul bayaan doo xam lii lii moom si calcul gëm rek ci benn waaw يشرب الشيخان عارف المسألة يقف تركيب الحاجة ويصعد إلى المولى wala yu seddu comme musi wala musi mooylu da wax dëgg te alxuraan bi ñu bëgg dimbal loolu ñu wax nit ñëpp moo tax léeg-léeg tax su gan yi nga dégg ñu naan kalima tey ba mooy laa ilaaha illallah d'accord naa kese tey ba nag mais dafa mel ni dafa mel ni dafa mel ni garab bu tey gi xam nga yow tàppale kan la ñaari moo la ñaari moo la fii ñaari moo yëpp kalima tey ba wax la waaw te ma ne kalima tey ba ma ne ay lay la waaye maandul nekk sa sa mais moom la ko suufee loolu dafa wuti maandul ne kalima tey ba ma ne ay lay la boo nekk sa tey bi nekk moom la ko kalima tey ba nag xanaa boo xam ci yàlla génn gi moo tax ba mu texee mu ne fa suru indi nag minu minu kon kalimatu minu boobu mooy dara sax moo dem ba tukkee fa yàlla te may kalima ba waaye ba mooy suruux bi su baaxee suruux bi su baaxee bu fekk dem la fi ma del ba xam ko ruuj ruuj sa am bi loolu mooy kalima tey ba parce que moom la ma jëlee càmm ba ban yàlla soo ko weddee ba yàlla jëlee wóor wóor ko ci Mariam lu yàlla waxoon ca Mariam wax na ma la fii lu waxee naa day def ba sa sa sa dàq kalimatu bi daal bala bala bu bu la soxla waaw. donc say dem Mariam rek mu dëggal waxtaan bi ban baax la dëggal parce que kalima boobu wuu boobu mooy bi ba mu dëggal fa mu dugg ci ci yaram yaram daaw du ko mu dëggal ban waaw boo gësee. doo ko dëgg doo ko dëggale doo ko doo ko dëggale foo ko doon ci biir yaram carax yow nga taxaw na ne da ngay yàlla wéru ci mu indi Abdoulaye waaw asal kalimat rabbi ah sa dugg ak barke moom mooy kalimat tey boo si daan tey asalaana saabit ci sa goraay gi dafa sax dafa sax fu mu am fu sax asal la jógee wax ci sa bopp faw ba foog baax baax as bi foog benn baax na gàtt ko benn baax du ay bàqal ba faw ba fii mu leer garab boobu tuuti ëpp la ku ne ay nii bis ràbbi ko doon mu noor ak nawet rag waaw waaw waaw wax dëgg borom dëgg li ma waxoon ne ma ne fafaali nit ñi duuru maa nii dana ta amul yi dana taa nii waaye man sàkk yasiru siru abadi jéggi maharifi bi fay dil moo tax sa sam layoon nii bi ba day war ñu la ko wut isa martu bi al janna mu ne soo ngay gombee boru de for forlent topp bi ni bal la mu ne la ko sukri mais pare ñu tudd yàlla fii fii tur daa jël forlent waaye na naa yu leen de day day naa bari bi ni fi tudd yàlla ana tur daa jël yi am ni forlal la ana ñeent bi waaye am na kooku moom mo na di fii fii Sénégal. raw si kóobal xaw ma fi loolu la gis nga buñ dara nit ñi ci ay ay ci àddis yooyu rek naan ah fu ñu tollee sikar daal ah kon àjjana yi mooy fi ñuy sikaree ah ku ma déggee foofu foroo dara loo ko. dégg nga li wax dëgg yow loo ko. maanaam sikar bi xam nga mooy ba nu ko woo daayira la. nu mu wut daayira la pourcent ba xam naa ko man pourcent bu daayira wut mooy noonu waaw kër gi benn mooy noonu kër gi mooy noonu pourcent daayira la mooy Ibrahima pourcent daayira la mooy Ibrahima Cheikh ñëw wax ba fa benn waay mu nekkal ko fa muy Moussa bàyyi ba fa keneen mu nekkal ko fa muy Insa kii moom la ko doon àjjana foofu boo ko demee gis ko wax fi yàlla muy tourné leer yàlla muy tourné ci moom naan li mu doon àjjana boo nekk sa am na boo nekk bàyyi am na kon ñu ngi sant yàlla baax ñu ñëpp di leen fekk di zaat ci weer koor bii weer waaw. weer yoo xam ne mooy xool isa jaar ramadan futtati abbaaru mu ko bu si fi nekk seeti wax dëgg mën na suul laaj voilà ah loolu kay mën na suul laaj wax isa jaar nasrullahi mooy moo tax Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee dama ne waqad jaa nasrullahi wal fath kon jël kufo kon yàlla ko jàpp ko day bàyyi ubbi buntu àddina yi tëj buntu safara yi jéggi seet bi seet yi ñu seetaan def seet yi te seet yi sax ba din léegi luy gis luy dama doon ne ndox jege. ins xam mooy lan ins ins seetaan mooy seetaan bi mooy ñii seetaan te xamuñ ko allah. xam nga lu la ñeme yi mooy ñi am moom dëgg dëgg dal ma jinne yooyu dañuy fent sa ins bi ñu ko la jëlee dañuy dem la ko tax jëlee kon ñu ngi sant yàlla ñu ngi ciy baax a baax benn bis bu ñu lay tuqadri ndeysaan yàlla bu yéen man ne benn guddi rek ndeysaan te guddi sax du leen benn génne ko ci guddi gi la benn ko laas ci guddi googu bu ñëwee mooy yàlla bu ne xel ñu ne sax mooy gën a foor mois trois jours 83 ans am na sax ay nit am na sax benn benn guddi gu loolu te mooy li ko xaar foofu nag ñu ne yàlla ëmbal tanasul malaayik mais nag yàlla dañoo tanasul xam naa tanasul malaayik bi yéeg na yow da nga yéeg a gis malaayik yi am nga la war a te nga war a gis ah soo juri insataa rabbana atak msdali kon bañ tasa malaaka ci ci li doon ngay gëf ko wutu ne yow fal ko pare yow coono yoroo wàcc ba pare boo jëg doo yow ko gis mais soo ci teew boo ci nekk doo gis la lu koy xiir ba gis ko sa bopp doo gis lu la xam ne doo gis d'accord waaw loolu jël sa xaaru rabbana suñu saxaru dëkk ju alee malik ala taxafu waaw kum daaw doon mu ne ko noonu boole ci nawet bi ah ala fa tamit mu ne mu fay mu ne benn ànd bi daanaka te aarif bi la ñëw buñ ne alaaka rek am na lu ñu taxaw ah waaw alaaka rek buñ ko waxee rek am na lu taxaw ànd bi ñu xam ne taxaw la kon ñu ngi sant yàlla baax di nuyu àddina bi yëpp def dëkk ci ramadan bii weer yi pour ñëpp la weer yi ku ko xarama sopp yàlla sa waay ñëpp ñëpp la yaa daganaan ko ñëpp la weer bi du moom moo tax ma ne ci ci ci noppi du ñangoo bëri xëgg ma la da la te ma la sax ko dee xeeral da bàyyi sa tur kan mu lépp ah xam amul lu mooy ñan ki gëm yoon daal Muhammad gëm Cheikh Tidiane gëm Baye bii dugg daal baax daana moo di non beneen bi ci kanam mu ñëw xiyaamal mooy julli boo jullee def allahu akbar xiyaamal moom bay wësoo nag da ngay toog boo xool na boo fa naaw nag dee nga da ngay tëdd ku dee day tëdd ku dee wut baax ku dee wut taxaw du toog ku dee moom du taxaw toog day tëdd waaw tëdd bàyyi ko fanaa ko mooy xol moo tax xol moo tëdd gars yi yàlla war ci kaw kon ci ko néew lu boobu ki koy sant mooy yàlla. moo fi. moo koy bi. yàlla julliwul sama nga jóg. niw bu bees. niw bu bees. cangaay bees. cangaay bees. jullee bees. bàmmeel bees. li bees. ñu dugal la fa xam ne fa xam ne fa mat. am yu bari am yu bari ko def moom dafa dara ko toog day tiit di kontaan di ndokkeel mbooloo baax na di ziar ci ramadan bi di ngay sant yàlla ba di yaakaar yéen man yàlla di yaatu ji ci weeru koor yi eh, wax dëgg yàlla weeru koor baati la du saay eh, kon mu julli moom nga nekk naa fekk du ko def julli naa fekk du koy def parce que julli moom mën nga toog fay def loolu nekk julli jël nga kabaar c'est vrai jàpp nga jàpp fu mu ko def ay màkk naa fekk naa def sax moom ko en tout parce que yor ko moom baatil yaa ngi ndox maa ngi nii lekk daa ngi ne jabar daa ngi ne wékk nga sa biir nekk rab tëj ko kenn du kon koom-koom bala nga wax entre teg ko bu pare nga ko entre kon baatal sama foog na gëm yàlla kon nañ gëm yàlla baxoo kenn doyee di waay bu kenn doyee ni xale bi ñàkk fay rek dañu woor pare xam nga man promotion am na yow dina kàttan ba police yow jëndoo carte pare bëggoon police loolu mooy ne moo wóoroo ba pare bëgg a dogal nit ñi yàlla ni ñoo pare boo dogalee naan boo dogalee da nga am doo am dara da nga jënd carte ba pare jënd carte wóoroo ba pare nag doo dogal ngay encore sa xaalis waaw yéen da nga am ne loolu la ñu ngi sant yàlla bu baax ngir ñu déggee fondoo mu neex rek mu def lu ko neex kenn du wax ku war a ñu saal wala ñu dóor léegi léegi ku neex rek nga wax rek nga saal boo ne rek loolu mooy xam-xam la mooy la mooy yar loolu amul yar amul dëgg nit dafa war a am dëgg ma même soo fiigu feeku na parce que yow ah, yow xale am nga ndey boo day ruus boo day su indee da ruus parce que xam nga ne am nga ndey te wóor na saaga même xale boo ko boo ko saaga fekk tëb عمرنا ما قال لي انا صبعي طيب انا خطر خطر ñaaw la muy yëngu ay salti la muy bon la muy xasaw ñu wax ju bon doo xam ne amul benn sax yi doye lu yàlla gërëmul ñun sam gërëmul comme ñu maa ñu gërëmul la ci wax te bëgg bëz ñu tudd ñàkk fëgg dama jaamu jàll waay ragal yàlla waay ragal yàlla da ngaa yàq sa bopp surtout weeru kër yi ak ramadan bi yéen sax nee na ku jëw nit sax jëw boo jëwee nit boo ko jëwee rek am sa sox jàppul jamono yi ñu dafa am ñaari saxaaba yoo ñaari xam ne dana jëw benn ko jëw ba mu ñëw mooy ne yéen seen kooroo yéen yéen ci seen koor gi da lekk ngeen yàq nan dog na saxaaba yi da ko lekk ngeen nan su ba yàqu na ñu ne Aliou Sow ñu mu nga loo ji wàccu muy dem kese te mu pare keneen ki ñu wàccu mu dem di teg di ci ba ba lekk nga ne mu ngi nii kenn doon jiw leen mu yàppam ngi nii dëkk bi moo mën a sa ko yàqu xool loolu moo tax jiw ci koor ay yàqu koor te boo jëw sonn na boo ko jëwee sonn boo ko jëwee yow may nga yow may nga promotion bu rëy soo ko di jiw te dem jëndoon ko noonu bi daa war noonu bi boo ko jëwee sa noonu bi yow boo ko jëwee sa noonu la ren sa noonu la nga jëw ko rek sa porte ma jógee coo dem ci moom yaa ngi promotion son son noonu kon soo ko damay jëw kay jëwal sa xarit bu ko def sax jëwal sa xarit boobu soo ko damay jëw jëwal sa xarit sax may noppi la moo gën moo gën ñu ngi sant yàlla baax na yow nuyu kontaan nañ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 إلى همة الشيخ وحضور لنا بهذا المحضر والبعض به بنظرة تأتي لنا بصورة الحمد لله ba léegi ñu ngi ñëwaat ci sura nisaa yi ba léegi di saaru di sant yàlla ci leer yi nga xam ne daay man sëriñ bi mu koy leeral ni ñu wax rek mooy doyoon na rek ñu dajee fi ngir yi jiital di ñaan toujours yàlla yàggal ko fi lool ànd ak wér moom foofu la dem di wax ne ñu ngi yemoon ci wala tatamannaw ma fadala allahu bi baadakum ala baadin li ñuy wax mooy Umu Salama dafa waxoon ne yàlla doon ñu nekk di ay góor di mën a jaar di am ci yoon yeeg yooyu noonu te góor ñi dafa mel ni ñooy xaw gën a bëri la yàlla ne bu leen mébét li xam ne gën a leen ko ñenn ñi si yem ci kaw ñenn ñi ndaxte góor ñi am leen cët ci lim fàggu jigéen ñi itam am leen cët ci lim fàggu léegi nag lu xew mooy wasalullaha min nii da ngeen laaj yàlla fi ngeen la ndaxte yàlla ko bëri la la inna laa kaana bi kulli shay'in alima si biir loolu am na leeral yu bëri yu fi ñëw jigéen la yàlla defal bu toppee jëkkëram nga tuppee yàlla jox ko ci tiyaabu yu bëri bëri bëri kon bañ a mébét di leen yàlla di teree loolu rek doy na leen yu bëri di ñëw insha allah ci ay leeral leeral yu bëri nee na ba léegi bokk na ci pexe texe nit léegi nit kon ñett la xaaj na mooy saada nafsiya wala boog nafsaaniya mooy texe ko ñu bakkan ñu mel ni loo xam ne si jëmm lay nekk mel ni daka ñaw ak xam-xam ak maarif xam yàlla kammiya si lim bi ak kayfiya ak naka la façon ñaw geeg yooyu wala yafatu ak fene wa sajaa ak jàmbaar wala karam ak tabe yii yëpp ay jikko la yoo xam ne tata àllaqu bi nafsi insaan muy faala nafsaaniya am na beneen boo xam ne badaniya la jëmm la lu mel ni kas sixa lu mel ni wér wa tuulul amri ak gudd fan lii yëpp day aju di badani insaan si jëmm nit yëpp ay teraanga la ay xéwal la ñu yàlla di xéwal nit am yoo xam ne dafay nekk xaarij yi yi génn lu mel ni ka kasratul awlaad bëri doom yooyu yàlla mayul lay doom moom ci léeg-léeg yu aju ci moom xëy na yu demee noonu di ko xaw a ñaane wal maal ak bëri alal mu ëppale la ko xëy na wal asdiqaa ak ay xarit yu baax boobu gannaaw wal ixwaan ak ay mbokk dégg nga naka noonu ak bëri ay doomi góor ak yooyu ak rafet ak bëgg nii nit ñi di sax si nit ñi gën bëgg bi ñu bëgg xëy na yow kenn xamul la yooyu yëpp dana def nit ki ñaari nit ki ilaa xayri zaalik kon nit dana la bu xam-xam dana la muus ëpp la maarifa dana la fegu dana la jàmbaar yooyu yëpp bu daal la dimbalu mu ko si iñaanee bàyyi wax ci moom lu bon gën la wér gën la gudd fan bu daal ko di ko di ko di ko iñaanee rek kon nit fekkee dama xool jëm si benn nit وأنا ومن أن عنده هذه الاشياء يبني يبني في موم تمام من قلبه في موم يلا دفن موم فيه قام قام بريو قام درجة قام درجة ويلا نقول دقي بدنا مميت أم لواجي أم مميتكو أم لواجي أم ولو أو يتمنى زوال تلك النعم نعم على الإنسان هذه الإنسان maanaam wala boobu mu mébét xéwal gi yàlla na dëñ fi waa ji waa ji xanaa moom la ko yàlla jox idaa tamannaa nag zawalaha fu wa xasab bu demee bay mébét nag naan kii li mu yor mbooloo meeg xabool gi mu am yàlla na ko yàlla ak yi kime gi yàlla may bu baax la ñuy tuddee iñaan wa in tamannaa nag an yaxsula lahu an yaxsula lahu ما حصل للإنسان فهذه خطة هي خطة لبدو به لولا وليست معصية وعينك باين إلى أن القرآن نهانا أن نتمنى ما عند الإنسان على كل حال فكرتنا نك دفا مبت أم لواي أم ما أنا na أم li mu am mais bëggul waaye li mu am dëgg loolu xit la lañ ko tuddee mooy ñeenti waaye alxuraan nag li ñu yaxal daal mooy tere nañu ñuy mébét la nekk fa nit ci bépp xaal kon nag fa idan laa yatamanna ahad maa inda ahad kenn bu mébét la nekk fa kenn bul di wax naan laa taqul allahumma aatini daaran ka daari fulaan maalan ka misli fulaan ka misli maali fulaan wa zawjatan ka zawjatihi yaani ka zawjati fulaan naan yàlla may ma kër gu mel ni kër Omar Niang may ma alal yu mel ni alalam ji dagal na nag nga mébét gis ko muy xit ma si xadar yàlla wala muy def lu baax mais mébét am alal di def comme lu muy def loolu dagal mébét itam ay may ma jabar yu mel ni jabaram ji loolu yëpp ndaxte bëri na xëy na moom lam yoree noonu bu koy mébét moom baax na si moom mais yow boo ko yoroon day nekk soban ci yow bëri na koo xam ne alal bu bëri day yéwénal diinam waaye bëri na koo xam ne alal bu bëri mun na yàq diinam moo tax nit kii bu di mébét la nekk fa keneen na ñaan yàlla rek wasalullah min fadlihi ñaanal yàlla mu jox la ci njëriñ la yasalullah na ñaan yàlla maa fi loo xamante ni dana si nekk salaahu bihi wa dunya wa uxra mu ne bàyyi nee na boo xoolee lii fi ne fekk ne ñaan gi ñu alxuraan jàngaloon ne rabbana atina fi dunya hasana wa fil aaxirati hasana wa qina azaban naar moom dem ci ñaan kon yàlla nee na wala tatamannaw maa faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'din yàpp si mbiru àdduna demee si mbiru àdduna lii xadis moom la doon junj naan unsuru ila man huwa dunakum wala tansuru ila man huwa fawqakum bu ngeen di bëggee sant yàlla na ngeen xool ñi nga xam ne dina leen tere bu leen xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen féete kaw toujours rek ak loolu moo yor rek da nga gis koo xam ne moo lay foog boo xool boobu da nga jàpp yàlla dafa dugg na dara moo tax mu ne di àndal insaan kaa ina man kenn إذا نظر فوقه يرى من عنده أدعى فأدعى ما عنده فأتكلم هو يستقل ما عنده فيقل شكره ni waroo mooy yàq si loolu nee na nit lu mu dam rek bu xoolee toujours bu ko yàlla dimbalu muy xool ñu ko féetee kaw day jàpp yàlla daful ko dara muy xàccee di tuutal santam jàpp ne daful dara di ñaan gis na dana ñu ñu bëri. kon na sant yàlla daal kon boo bëggee sant yàlla. na nga xool ñi la féetee suuf loolu moo gën a mën a yóbbee nit ci bu mu sant yàlla bul xool ñi la féetee kaw ndaxte loolu da lay yóbbee iñaan ak saaj ñu yëpp ci mbiru am na bu dee nag ci mbiru diina waaye nee na falaa ba'sa an tanzura ilaa man huwa fawqaka li tax li tax tariya bii bu ko defee nga mën koo rey xeexal sa bakkan ba nga mel ni moom bu baax xoolal ñi la féetee kaw nan lay def bu mel ni ñoom Ousmane Sow ñoom Toubaay dégg nga ñoom Omar Niang nan lay def bu mel ni ñoom a boobaa nag bu mu xool li nga xamante ne day mel ni sama classe bi xam ne nekkul dara su yàlla du melu ñun boo xool dangay jël nga xamante ni ñu yi da ngay jàpp ne yow yaa ci kaw da ngay defee dégg aw ndax mu ngi góorgóorlu yaafus ba pare di ko wutal ay laaj. Hmm? ma ne yaafus ba pare di ko wutal ay laaj. dëgg hmm. la. dëgg la. mu ne nit. walaw balaga maa nit ak lu mu tayal ak lu ñëw ñëw jëf bu gëstoo rek ba ne gis boo xamante ni. buy xool si moom day jàpp ne moom jàmbaar la kon bàyyi leen li moo tax toujours rek nit ki na xool ki nga féetee kaw ci mbiru diina ngir yàlla bu mu xool ki la féetee suuf kon nit daal bu fekkee mu ngi mébét la nekk fa benn waay bay mébétaale mbir mi la dañ sax si moom loolu may ñaan تروى الحسن يأكل يأكل حصنات يعني حصنات الحب كما تأكل النار الحطب قل واسأل الله من فضله إذا داي لك رفت رفت جامي كم نو سفر لك مات كون بول سولو kenn ku yàlla jox teraanga ngay ñibit bu dëñ na nga ñaan yàlla ci njëriñam booy ñaan wax rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tan yàlla defal ñu loolu inna laa bi kulli shay'in aliman yàlla kat aliman xamaakoon la bi kulli shay'in maanaam kaane nekk na mos dañ bi nekk aliman te xamaakoon bi kulli shay'in ci jëf lépp mooy la bérébu ngëneel moo ko xam moo ko fay def kon nag laaj leen rek mu jox leen incha allah loolu mooy charme bi nga xamante ni moo desoon ci aaya waaw salaatu wa salaamu ala rasulillah mbokk bi ñu ngay dëkk la pare d'abord Seydi Abdou Thiam ci kàddu bu sell ci kàddu gu nooy kàddu gu rafet kàddu gu am lijaaba kàddu gu am maarifa kàddu gu am mahabbatu fillaahi tabaraka wa taala ñu ngi ci ndokke bu baax yàlla moom ngëneelam ku mu ko jox yaa ko moom ku mu ko xañ moomuloo ko te yàlla jox na ko kon alhamdulilah ci loolu ñu bëgg yàlla joxe ñu gërëm ko ku nekk am na may ku nekk dafa am lu yàlla may may yi bokkul na man yu bëri wuute ku nekk bu ko teg sa nga bus fekk sa bos baax na mu ngi mel ni bi yàlla bindee yaram bi du rox jël rox dugal ci yaram cër bu nekk am may cër bu nekk cër na na may tànk moom mayam mooy dox mu fekkee nag xeex na dox nag bay gis bët boo amee bët te amul tànk dootul dem loolu la xamul foog mën na ko nekk mayam ku nekk boo amee mayam te dee mayam te mu dëgg ci moom ngeen ànd ci may la may ngeen bennoo lépp dana sotti al jamaatu ba Eh, aye bi démb yàgg na ci daanaka moom rek dañu fa démb moom aye bi te te guddul sax nag wala dama naw bii li tax rek mooy li ci nekk ci ay ngëneel moo bari te suñu yaay ju baax soxna Seydina Muhammad moom mi ko dund bi nii wax ne ko démb eh, bi mu ko mébétee nag góor ñi seen cër yi ñu am ci bëri waaye ñun jigéen ñi nag moo ngi mel ne kon jigéen amul cër taxaw kay tey lislaam góor jigéen ñi si war a gërëm yàlla ci ñaar rek ci zaahir moo jigéen lool jigéen bu jigéen dee am sax dañ daan doon nu alal rek doon alal ko moom xam nga lu muy doon doon alal par doon alal ko moom islam ñëw rek déedéet nañ li jigéen da kaa xam jigéen alal ji si boppam eh, dana ci am sax yàlla indi ñaar indi benn góor ñaar jigéen benn te benn jigéen bi kat sax moo ëpp doon ñaari góor yi loolu jigéen ko sëlul ay benn moo ëpp doon ñaari góor yi ndaxte yow góor da am ñaar jigéen am benn ak pare jigéen dañ ci bosam ñëw bokk sa bos si ñaar yow kon day mel ne ko moom mu la bëri foofu sax te sax ma ko may jigéen ibnu salamata doomu suñu yonent loolu sallallahu alayhi wa sallam moo bi uti bibit bii soo mën suñu aaya yàlla bëgg a wax jigéen na ngeen muñ am ngeen cër wax naa ko fi démb wax bu yaatu bu gudd lool bu sori tey du ci jaaraat waaye day jaaraat ci saraa bi rek comme ni ko Baye jàngalee ci wàllu ñeete yu mel noonu ndax doomu aadama bër na bu ñeetee ñeete nga daf koy lor am na ñeete koy ñeete bu fekkoon ne ñeete bu dul yàlla du nii tey waaye bu amee oto bu rafet wala kër bu rafet waaye doon moo joo rafet yooyu yëpp man mën na ko am nga ñee ko pour ne soo amoon lii bu fekkee ne léegi client du def ci yow doon dabax mën naa baax dégg nga wax bu nekk kañaan du dabaat ci yow mën naa baax ñeent lu baax moom pour am ko koy baax na boo ñeent lu baax nag ngir nag waaye da ko war a pour yow nga am ko waaw loolu pour ñu aaramoon ñeent mais nag soo ñeetee ne man kat war naa am kër gu nii goxaneem nii ak bi nii ak sama société sii su am sii di ma defal nii ñeente boobu nga ko ñee ku yàlla may la ko nga am ko ba tey kat parce que ñaata coono dara boobu ñeente baax na boobu ñeente baax na waaye ñeente bi bi ñu araamal nag mooy waaye man li man yàlla may ko wërsëg li mu ko mayal yëpp moo koy ñeent moom ñàkk ko pour moom boobu mooy xaram. difaaxan wa maarum defaqan ci mbiru jigéen léegi <clears throat> kan bu baax kan mooy jigéen bu baax ak kan mooy bu bon jigéen baax mooy jigéen boo xam ne soo xam nga yàlla dafa jël pëy pëy soo ko sa njaalo xaraam yàlla daf ko denc denc bu sori boo ko denc fu soree sori ko denc balaa nga daa jot foog borom lii laay la ci te jigéen bu xas am borom kër na sangu ko nag wax dëgg yàlla maanaam ko fi trop jigéen nekk na ful la bee soo ko joxoon tey yow borom këram kër kër jox ko oto jox ko jox ko lu nekk këram mel ni palaam nga jox ko dépasse muy dem marché di dugg ay taxi bu nekk wala oto di ko yóbbu sax soxna nga muy dugg ñëwaat jigéen ñàkk na ful na be jaay ko dugg di bii ci koñ bi di ko jaay ay soble ki laaj mën na ko def ba tëdd ak moom ñàkk fànn yi dem marché gi ay ay ay ay lëjum xaw lëjum mën na daa jaaree ba borom marché ba jàkkaarloo marché bu dox boobu ba dëkk ak moom ci la ngay jaay te li nga jaay mënut sa mënut sa mille franc kon ñàkk faale jigéen dafa yaatu lool dafa bëri kenn mënu ko wax ba nga xam ne taxi bi lay yóbbu sax sax su mu yóbbu sa suba yaa ngi fenn muy mbindaan nga dem rek de nga ko yaa jël li ko fay ba pare nga dem ba nga xam ne léegi doo doo dara doo dara léegi sax du am pare du fi jeex yépp am ngeen ne ci jigéen lu xaram la góor nag am na am na wàll parce que njaar ñaari koy def njaaloo kenn ko ñaar koy def waaye nag ki ci gën a moom góor a fës waaye njaal yéen moom jigéen a jàpp ci waaye sàcc daal ci góor la ko doon njëkk moo tax góor buy sàccee góor la waaye ñu ngi sàcc li ñi sax di nga ragal. njaaloo yi tamit xëy na xëy na dawul ci kat waaye ci góor la tane waaye tawul ci dawul ci ci kat su ko góor dafa da koy rey bu jigéen rey bu fekkee dafa sànni kon dawul ci kat waaye nag ci jigéen moom bu buggee rek du sooy bu rëbbee du sooy néew lu muy rëbb du sooy. métit bi tam ci moom lay dellu. waaw métit yëpp kon ay yi loolu ñu koy jàngale léegi tafsir bi nag waaw ñu ngi ci ñeete bi ñeete bi moo ci gën a bëri ko ñeete ñeete dagarul dañ ko xaraamal ñeete ndaxte ñeete day mujj bi ci ceew kiñaan te bu la kiñaan duggee même soo amoon la ja amoon sax sa ceeb daan tax da nga may lii day ko nag jëf dana rafet baax lool bëri lool waaye client dana tax jëf ji client bi dafay dafay lakk sa jëf foofu jax tak client day tax jëf dina jëfoon ci lu lakk comme ni ngi ñooy ciw kóor ko ñu sax nu ngay effacé noonu lay kenn effacé jëf la te client ba ak bi kon yéen san wax benn wax bu day waar wax pour onze bi falax falax nag gars yi ñoom mooy pas-pas ay pas-pas ay euh, euh, daan saa yi moom loolu la waaye man du ma ko sori loolu falax dëgg nag ma nekk pas-pas waaye ban façon pas-pas lay doon ndax njabar lay doon wala déedéet d'accord moom ah, waaw dégg naa te saa yu pas-pas yonent bi daf ñaari pas-pas saa yi koy teen ba dañ doo am deret nangam nangam nangam comme ni ko suñu bëri dee waaye falak bi yàlla xul waxal onze maa ngi musloo koy musloo bëgg falax borom falax léegi luy falax falax may fan falax fàppal xat bi war na wax xottee ko ki mën a xotti guddi jàppee ñoo mu xotti ko fayal génn ba jënd génn kii may falax lii ma tudd falax ki mën a xotti yaram da ci yaraax ruux dañ ko kap lii mooy falax man lii lay tuddee falax mu ci gis gis du jàll boobu mooy falax ko xotti bu jigéen bi day doom lii may falak falak mooy xam nga yu sax nañ ko defal ñaar lañ karam zakaram e ko xot kon saqu bu am ñu xotti jigéen suba sàkku boo leen assuré yi nag ñun dañuy ñoom ñaar rek sàkku am war doom génn. wala yu fànn sàkku adam. moo tax falax falax affaire la falax affaire la xataa kaddu gi gën nii ci côté Lamine muy gën a kaddu nii ko kenn mënu jëmee bëriwul farax jëmee bëriwul farax. xanaa zahir moom da ngay yére yére ñu koy firee yonte bi. yonent bi man jombale naa ko ñu koy ñu koy xaatim ñu koy liggéey ndaxte yàlla mën na wala yéen suñu benn yàlla mën yonent bi wala ndax suñu benn as na yàlla mën ah ci nit ñi kooku ne yàlla du sàggante nag dañ koy dakk dañ koy yeew muy gën te ñun boo ko see ñu ko see liggéey mu wax lu noonu façon yi góobu donte nag ñaa ngi koy doxee ñëpp war ko ngay wax dina yu mag yi waaye ñoom seen jamono yoo xam ne man yonent bi du ma ko doy du mukk kenn du ko liggéey tey nag yonent bi sax dal la yow yow yëpp dana liggéey da nga ko mën a jot liggéey yonent mën na ko liggéey mën na ko jot liggéey bi ngay jël di ko liggéey biig boobu daxaa ñu ngi ci biir big bi mooy ruuxu moom fooy bi nga war a xaatime mooy yaram daje ngeen bii bi ak fooy bi dajee mooy xal ko soo ko demee nag sax na koy ah, eh, eh. liggéey na koy liggéey dañu xam ne yëntu ba pare nga xam ne yëntu ba xam ne kenn mën ko liggéey kenn mën ko jot ko liggéey na ko mën a jot sallallahu alayhi wa sallam mais boo la yàlla la yàlla def ci moom yéen a may saayee nag dañ koy saayee rek nii rek moom lañ la Moussa waxoon gaa yi bi ngay lañu ci gaa yi mu ne fee dama fa dama dama dama am bakkal ci ci mag bakkal parce que damaa leen kenn foofu ci ñoom Moussa du am bakkal Moussa du am bakkal comme ni ay Moussa yu deel du am bakkal hmm, du am bakkal maa suum man du am bakkal kon bara ba am na foofu war a leeral ci xarit dëgg la Moussa wóorul nag te Moussa li mu wax moom ak man wax. dëgg la mooy lan ci yéen. am na ku mu rey kay. yaram day rey. dëgg la yaram am na ku rey ci biir. waaw ku mu rey. ci biir kon Moussa day rënd. bàtt bi Moussa taxawee nag xool ba xam ba te kanamam leen. wala fële wala um am naa ko bàq parce que nafsu xalqee ba bi mu xam ne mooy feeñee ci man mii bu dee fee dañ koy rey am dee ko <laughs> yéen ñoo xam ngeen ko di wutul ko sën boobu am na sën li muy xam-xam lay wax wóor li kay fii du dëgg Moussa Moussa yu neel am maasum lii firi nii ngeen doomu lan la loo may dugg fa nga ni lam bi xalqiyam bu jur xalqiyam la jàng na fële ba nga te kay moo koy rek bu defee gars yi rek ci bàyyi rek Moussa mooy wilaay nga dem jëpp bàyyi kër ngay rey mooy rek ñuy faasu ko kon ñu ngi woon ci ba léegi ki ñaan mm-hmm. nit dana mën a football rek football football yëpp añaane dëgg la na dama bu may tàgg sa ne faa maanaam na dama loolu sa yow ma doon sa dëgg fa ba bu wat ba way tàggalee rek gaa yi yëpp nekkale ne soppi yu yóbbu ñu kon foofu ko noonu mu soppi parce que noonu la am soppi noonu ngi ñu soppi ñu ne gaa yi kooku tamit iñaane bu mel loolu nga xam da nga bëgg mu damm dem hôpital te dul dara du nga mën a li nga wax ngay mën ba yow da nga mën ngay mën ba léegi ko demee sax yow man lam ëpp la moroon sax ah, xanaa kay nga dama ko sax waaye yow du yow nga nga ko Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane gis ne Cheikh Tidiane moom wax bi seet yàlla ñëpp la mboolem koo xam yaa ngi woote woo sunni yi loolu dafa neex képp gën a bañ ci àddina mooy Cheikh Tidiane lan la def te kii ñu bëri gën a bañ ci àddina mooy Cheikh Tidiane te xaaye ko ma xam xaaye ko sax boo ma waaye xaaye ko mu nekk mu nekk li ko baax te mooy xëy na wilaay ah, ba nekk xëy na wilaay yàlla wilaay mu téye lan tariqa boo xam ne tariqa ba tariqa mag la wut wan tariqa bu nga sosoo usul si wut xam tariqa boo xam ne billaahi si laa ilaa moom rek la yàlla dëkkoon ci islam te tariqa tijaan képp ku gis da ngay jëfi ak koo xam ne doon sax balaa suuf tëkk teel a jàpp doon sax balaa suuf tëkk teel a jàpp doon sax commune nii nga réeré ko ba ñaane ko kan bu sax dana gën a seetal ci ay jàpp. parce que laaj daal di yow nag balaa nga mënoo seetal taw. ah kon luy seet ya kaddu gi rek kaddu gi lay génn rek gii rek ba ne laa ilaha illallah bañ gaa yi liggéey ci yow. kanam tëggulu mooy seen waaw mooy kaddu gox damay lan nga ko génne sax tamit lan nga. Oh. ma ne ñu mën te kii la nit ñi gën a iñaane ci àddina de. ni ma xam gën a may. kon nag bu ñu kii yaa ngi kii laa di bii moo aram bii moom safara ngay def. ndax fekk yaa ni alquran mu ne wa an lawis tiqamu ala tariqati la asayna man qadaka benn tariqa du mu turuq ala turuqati bi ay tariqa benn tariqa rek la et benn diine moo wér benn tariqa moo wérul benn diine benn yàlla benn yonente benn diine benn tariqa benn xibla benn benn rek benn diine tariqa benn moo wér benn tariqa Cheikh Tidiane léegi nag soo ma ko bëggee wax nag nga léegi nag nga di gars yi naan waaw peut-être daal amuñu mel ah dafa mel daal Dakar lañ bëgg a dem rek ah ka jógee ko di dara jaaree nag da ngay mel ni da lay nax da lay nax du dëgg ceeb baa ngi waaw da ngay bëgg taxaw nag ku naa mal la ndax ko def ndox da ngay jox jox jox jox jox ko sax làmmiñ nga koy jox gémmiñ nga waaw mu ne fii ma jox mais dara war a mujj ci a mujj a nag moo jëm العظيم تخبرها الجرائم كلها وولدها waaw kii yaa dafa lay waaw kii yaa maa ngoon te prononce bëre bi daal jur wàcc baax na boo waxee seetaan rek sareytu la sareytu la rek la ñaan day dem rek kon onze bëre falax laa nekkoon ci falax falax mooy falax bu dafa bi war a kon falax waaye dafa def xulwoon ba déglu falax xulwoon avance maa ngi muslu du maa ngi muslu waaye dañoo maa ngi muslu koy muslu. waaye dañ dem sa arab dañ dem arab rek da nga xulwoon avance maa ngi muslu ban béréb bi maa ngi làqoo bérébu falax borom falax ci la koy làqoo min sëriñ maa falax ayoo lépp yàlla. yàlla bindul ay yàlla ay ay la ay yàlla bindul ay waaw yàlla bindul ay tekk tekk na nag de xam ay lu yàlla bind xam nga ay ab yàlla bi mooy mooy lan mooy nga réeré waaw boo xam ne yàlla bind yàlla Mbour wilaay Kella Naan Yaraax ak ay wilaay réeré ko mooy ay wilaay ak léegi. courant bi amul ay courant bi da koy talbe da koy yar di koy yar di koy yar da cay fii di ko nax ba dugal ko dugal ko ci kër gi bu ko du rab ci kër laa ko yëpp tàkk da tax ma leer indi leer tàkk ni tam nga jël micro bi nii dóor ko ci taxaw am ba gars yi ba ngay ñuy nekk dégg na kot te sa bi tàkk sera passé bi nga passé ah climatiseur bi ñëw wante bi ñëw dëpp loolu comme naa ko gaz bi taw nga taw gaz bi toog ñu lekk kii baax baax baax lépp baax. dëgg la xam mooy lan ñu réeré ko. ay bokk rek ma ne ko nañ téye bu baax. baax na yaa ko réeré waaw ah, loolu sëriñ bi yaa ko réeré yaa léegi loolu yoo xam ay yàlla bind yàlla bind ay yàlla liñ bind yëpp lu baax am na ay. lu baax la yàlla du ay yàlla dafa départ fu ne ca askan yàlla départ rek indi kaddu bi nit ñi daal yaayoo naas ayoo naa ku ñu gën kon yëpp baax na kon yàlla lépp a baax fii li tax a rabbakum ay sa xarala suñu waaye da wax nga ne laa soog ñaa aw ñu ma jël kër wala sax léegi loolu yàlla waxoon léegi nag yàlla la koy dee pare nag xam nga comme yàlla bu ñu dem ñëpp a ñu dem fii xam nga comme yàlla rek benn benn ay ay bandi rigo yàlla xool gars yi naa ah bokk daal di leen kafaroo am ah, kafaroo waxee la waaye nag yow yaa di sa bopp doole moom dama la ko yaay witti li la wax ñu may kaasu yaa toog yàlla ñu ne eh, yàlla ma dëgg laa dañ ko dëggal parce que li ma dëgg la yàlla na amonoo ah, yàlla may doxee day xool gars yi rek réaction lay xool rek ku réaction mën a kafaroo li réaction mën a amonoo waaye ci amonoo nga dem yàgg rek nga xoolal nga fa naa fekk mu Look. bokk na ci saraafin loolu la. daa pare soo ko feeñ. daa feeñ pare nga feeñ day dafa pare nga feeñ moom. loolu ngay xam. maanaam xulaal ko def xalaat ñu se maa xalaat ñu se xaasin saa ko ñu noxal suñu xel yi xam ne xam lay jàll mooy lowal laa ko daal di bàtt. yàlla mu ne. waaw foofu ko xool. waaw amul sa xalaat. waaw foofu du ko xool. maanaam parce que parce que parce que yow parce que yooyu ay paraba yàlla ñu ci yàlla moom day sànn li leen doon ne moom dafa moom di jël jël di dëkk rek ay saay saay am na sax duñ saay saay waaye dañu bëgg waxee saay da ngeen di dañ ko liggéeyoo rek. koo bëgg a def nit rek. dañ koo nit nit simple rek. nit simple rek. loolu la mën a sonal loolu mën a sonal. dañ koo bëgg a def nit dañ koo bëgg a def nawle. du du nawle. dañ koo bëgg a def wujj. waaw dañ ko bëgg a def jom waaye du nawle moom dara nga ko mënul. pas-pas yeeg xërëm yeeg gàllaay yeeg xaalis yi ay pas dara parce que ngeen ba dee. waaye dara yóbbu loolu du ko yëgal. waaw waxal ko rek. waaw gars yi fas nañ ba dee. xar nga xërëm nañ ba dee kër gi dañuy def lu ne. léegi nag bi loolu yëpp maîtrise nañ léegi ay saa yu des léegi. ku dem ba wax rek amatoo pexe da ngay jëf jëf nga amatoo pexe la jëfur nga jëfur wala nga jëfur mooy la jëfur ndax ku jëfur mooy loolu xam nga xam nga li tuddee xam nga dëmm. dëmm baat boobu boo dëmm. li ko tuddee lu ni ko tuddee moo tudd. Eh, dañ koy tooñ. dañ koy ki ñuy tooñ. tooñ moo lu tudd. loolu mooy tugu. loolu mooy tugu amul du dëkk. dëmm du dëkk. mais ngeen gëm kon mais ba ngeen gis naa ko mu lekk du doog dara. lekk doo ko. te bàyyi gisoo ko. coow lee bëri gisoo ko. lekk daal muy lekk moo tax moo tax boo demee fii police boo teg tamit dëng boo demee police dana lekk lekkal. lekkal boo ko lekkul da ngay lekk lekk dem léegi ñu xool doo ko fekkee mu loolu yaa fi léegi. loolu amul c'est faux. c'est faux du dëkk. te a yow mii bëgg na doom da nga jël kee kee kee waaw soxna bi doom soxna bi doom bi jëndee ren bëri yi noonu kenn bi noonu yow man sañ kër yow man bañ a kër waaw naka naka bala war da ngay jël doom yi nii mu ngi xam ko moom kii laal ñaar nga xëcc ko teg fële quoi sëñ ay bàyyi tooñ yooyu du dëgg. ñëpp ay dëmm lañ def. waaw mais loolu mooy loolu mooy dëmm de moom. kenn waaw loolu mooy dëmm kenn mënu ci baa nga dañoo dëmm moo ci dëkk waaye kenn mënut a mucc la mu mu mënoo ko. ku ñàkk rek ñu ne dëmm la. waaw ku ñàkk moom foo fekk fi fi kii ne mooy mooy goxu daal. dama bi ci kër amul dara wala koy tubaab wala koy tubaab tooñ ñu ne woon ci ba tey ba léegi fii ñu ngi fa dee. waaw muy war a gën laa hasada ilaa fi isnatayni déet ñaan ñaan bi maanaam eh, ñeete daganul fenn du si ñaar waa joo xam ne yàlla jox na la alquran mu si taxaw di si jaaw wala wala waa joo xam ne day joxe alalam eh, guddeeg bëccëg waaw boobu tamit jaaxal léegi nag si foofu am na ñuy ñëw rek ci li yoon si wax ne si mbiru àdduna dagan na maanaam eh, waroo xool ki la féetee kaw ki la ëpp waaw loolu moom xadis jar nañ ko bu yàgg Misal, ñaar dana am ci yërmande yàlla irhamumat la xam nga ki nekk ci diggante ñu ñaar yàlla foog la ñëwaat xam nga ku nekk diggante ñu ñaar yàlla am na ko fi nekk frontière frontière yàlla mi daa xool taxaw fi taxaw kooku la ñu wax nag irhamumat la yërmande yàlla fa tax bi mu tax yàlla ko wax sa gidaar moo tax yooyu yëngal kay. waaw waaw waaw yëngal ci kaw yëngal ko mën ko wàcc. loolu xam-xam la. yow daal Mouhamad yërëmal gaa yi. kay bële si. kon ñu war ko yërëm. xam nga julli julli julli gaa yi wax ne mu ci takku sax. waaw waaw waaw ñii de borom xam nga ñii de dama ni takku saan la.

Moussa waxal foofu yàlla bu bu bu ci julli kay kon moo xay bisu ala xaala te dafa waroon wax nag julli leen ñeenti julli ñu mët na benn sa abdel salo sa abdel salo pare sa du gusta kon xaari moo xam Sadou Moussa mooy Cheikh Tidiane. Sadou Moussa mooy Seydou Tidiane. Cheikh Tidiane ay sama waay. lu lu mu jëlee jox ko. lu mu jëlee jox ko. sama waay bi te bileemu Sadou Moussa. attan na ko attan na ko. xam nga yow li nga jeexee ci xaq-yaq yi mooy mooy Sadou Waly foo dese bi. Sadou Moussa baa ngi. mu dégg doomu. du nit du yàlla ah ñaareel la boole. sa sa waa abdun wa ko amdu. moo tax moo boo ko boo ko la Cheikh Diagne. sulu bu ci kawam. ruu ci kawam. xol ci suufam naf ci suufam. kon islam ay daay waaw. ci kanam. xaal maa xam ci ginnaaw moom la ko ci digg. ci moom itam sax dafa sànni. te ngay tëjee fi nga taxaar boo dund bi kii bopp bu set na. fi nga taxaar bu foofu fi nga taxaar bu foofu. déglu sa dugub. man saa ko wóor waaw waaw. te léegi tuuti ca gannaaw ba léegi mu gën a gannaaw bi la. voilà. kon ñaar rek la ñuy ñaanee ci gàttal ñaan mu foofu ñaar rek nga def. borom alal borom koom-koom. pour gàttal ay ay neen moom soo ko setti ñaar ak ñaar ngeen sax ci am xam-xam ak ci am alal gis nga ndóol boo koy toppee di di raam kay kenn du ko nag ki ñaan waajur ñu dem ba yow dootaa def lu baax ngir moom yàq sa yàq sa jàmm yàlla ci bëggee wax السيئات والصالحات شنو يا فوتو بودو فوتو اللي بوغاي بودو يوتو موي يوتو لو وقت مون كات لا نمو تبا لك لك انا بس لب لك كما كما تاكل النار da fay lekk jëf comme ni sax la lekkee man su ma nga nekk rek guddi bëccëg su ma nga nekk jox ci moom rek looy wax ci moom alxuraan xaaral maanaam bu yàgg yàgg déggul wóoloo li naas waxal ko rafet la wax loolu yàlla wax wala wërsëg loolu yàlla wax subhanahu wa taala ñun ñun dañuy wax jaamu kat yàlla ñu jaam ko yàlla ñu may ko yàlla wax ñu ban lay nam wax ñu ban jëw rek li yàlla xaramal ñëpp ñu koy def tout nag coolee bëri rek coolee bëri rek yàlla bëri si rek waaye foo toll yaa ngi jëw di foo toll yaa ngi yaa ngi nit foo toll yaa ngi kii na dee da ngay dem ba waaye sax da ngay def la xam ci àdduna da ngay xabar ci àdduna. xatal la de waaye bu dee dafa yàlla parce que léegi da nga yàlla amoo ko. moo tax bàmmeel léeg-léeg nga ga léeg-léeg nga di ñaan bàmmeel dafa lëndëm bàmmeel dafa xat parce que bàyyi su bàmmeel xatu lëndëm bàmmeel xat fan fan boobu xatu lëndëm léeg-léegi tamit nga nit ku dee nga suul bopp di ko ba mu naan yàlla su ko yàlla su may fan. lu mu invité nga suul bopp di bos naan. waaw waaye yàlla suul bopp di ko am na. suuf mën naa di ko. bu la ko wane moom mooy suuf suuf mooy. waaw waaw waaw mooy suuf. si kan tas ko. wax. moo tax bàyyi ma la fukki trois bi. bi tubaab bi bi ay dëkk comme maa ngi laa maa ngi si kaa as. nit bu dee nit nit dee noonu la mel nit deewul nit bu dee deewul. tax dafa am ay éléments yi mooy génn ñu koy joxe ñu naan dee fekk yow déggoo la ca. nga def naan bu yàlla dafa jant bii. yaa wekki wekki xam nga jënd mooy la. parce que bu ñu la xoolee ñu wekk rek ngay gis moom la ñuy wekk bëri. yow li ñu lay sa jëf la yëg te nag tànk jaww jaww mooy lem sa boo la ñuy lem nga naan ko loolu ñuy fekk ko nooy gi dañuy lekk muy bindu muy bekk te xam na lem suuf si fakkata la lem tey loolu ngay am wala nga daal rek lii mucc doomi xàq

te booy dee dana jëmale ko fa suñu suuf ñu jëmale ko borom ba yàlla muy suuf yow xam nga yàlla muy asamaan te nag nga jëmale ko suñu ngi jëm su ko suñu borom ah ko da way dëgg borom ne ko di ko yàlla muy borom muy suuf mi na par na do fiya do mi ko jëmale ko borom ne waaw ne bon ko bi فلي قفاء ولي سر ولي علام لما خلقنا نجونا من ناجينا أو خلنا فوق من نرجو ناجينا ومسجلنا تجلى في مجالنا فمن له معنا حتى يجلى باين ولا وقد لوحة الوحيد لكوننا كل مكان منقود léegi wan ki ñaan téye ma ñaar rek simplement pour ma noppalu ñaar dañuy ñaanee ku la raw waaye koo boo ko ñaan koo raw rek la raw rek ngay ñaan te ñaan baaxul te ki war ki war a raw nit ñi nag boo ko ñaanee yow doo nekk sang parce la tax la tax mu nekk sang mooy li nga réeré ci moom moom raw loolu yàlla loolu yàlla kay loolu yàlla kay. loolu loolu loolu yàlla sax soo bëggee gis tooñkat boo xam ne nii foo ko fekk day mel moom lañ tooñ. waaw tooñkat boo xam ne foo ko fekk day mel ni koo tooñ. te muy tooñ. lu ñu am ni ñeen yow nit ku yàlla may wërsëg ubbil ko mu am mu am xam-xam wala mu am alal def ko rafet def ko rafet loo koy ñaanee nga def ko fii lu tax nga def ko fii defoo ko ci man lu tax nga def ko kii te joxam ko ma leer yaay kan yow xam yaay kan moo tax benn gën nga ko saabaam yi dafa am benn gërëm daan dox ci mbedd mi moom benn buur boo xam bu doon ñëw gars yi eh, ñëw côté di wàcc mu tax mu borom ak gars bu saay saay la woon dana saabu yëpp duñ ko rek dox dañoo moom kon dañoo moom dañoo dugg dimbala du gëm la ko lépp dafa yow xam nga tam waaw dem ñu la ko ma ko may kan mu ne ko gëddee mu ba nii la woon sobe fi nga taxoon ay fukk kese nga sax xam na ko daal nga xaayoo daal man xaayoo daal yonent bi ko da ngeen réew fële voilà kon ci gàttal ñu ci kiñaan rek ba tey gars yi pour ñu moytu ko juru def xam juru ko kii nag mu ne sikar neex baat yow xam nga man aw ñaar bu sikare su ma lu ma nga iñaane iñaane wax dëgg yàlla moom doo mën loolu doo mën nekk ñu may jàng moom door ci moom moo jàng doo ko mën man mooy laa boole war a jël sax te bii bii xam xool rek kenn xamul la bu xamoon kenn xamul wax bàyyi yaa bon danaa ko bàyyi mu dem maa ngi ko tàccu rek su ma ko su ma ko tàccoo nag bu ko dee am ci benn ba pare mu am xaaj jël ba dugg ci oto solkat bi ba dugg ci oto ñu dem mu mu mu njëriñ gënal rek ma ci bànneeku ma ko añaanee nag bu oto a ko soxla dox rek tuuti. waaw nga xool ñaaw. waaw. ne ñaan nag amul bàkkaar te amul bànneex. voilà amul bànneex dëgg la amul bànneex. soxla gën a bànneex. booy naan sàngara sax da ngay bànneex. daaj bi daaj bi daaj bi daaj bi cee am. parce que boo duggee ci baar bi. commande bi ngay commandé bis bi seer boobu. xale bi dëkk yéema. ba toog ba sensation boobu ba toog ak taw. kii la ba sa daal di jël jël kas ko ñëw teg dañ ko ci boppam bii naka muy bii bii kon kon dañ téye ko ni ngeen nga fekk naa ne ko ko tax ci bii bari baaxul bàyyi bari yooyu yëpp kon nañ si moytu ñu ñun ñëpp. ñun ñëpp nag ay suñu ay wax nii. kii wax nii dañuy wax ñoom ay. bu kay ci biir kay ci biir ñoom. waaye wax nii. yàlla wax fii. moom lay wax. bu fekkee fii su ma xamante rek. loolu kon ku añaan génn ci. bu siis bu siis génn ci. drogue beeg yëpp suñu bànneex bii la ñuy wër. waaw te sànq sax xam nga sànq dafa am bànneex mu doon wóor wax ba dem sax da nga am bànneex waaw buy sàcc da nga nga bànneex booy njaaro nga am bànneex bànneex booy jëw ba doo da nga dee ba dee bay sukkar ndomban waaw yow yaa jël boo a mooy mooy ñaaw def yi gën a bon cat bi te nit ñi xet waaw moo tax euh, boo seetee xaar bi nag xaar yi nga foofu boo fa demee kësa boobu gudd na trop ñu fii ci alhamdulilah xaar bi feeñ asal la woon fi jaarul waaw lépp yàlla moom lañ njëkk a mooy yàlla ci kaw moom lañ njëkk a mooy yàlla ci suuf kon na yàlla doon musul gaa yi waaw yàlla musul naa mooy lan mooy ñu mooy bàyyi ko ñaan nga daal mooy nga mooy ko rek ah ndim ngal ngal rek mooy ko rek pour nga mën a baaxul boo génnee mooy ko loolu daay am yéene ko yéene ko rek nag sax man man xew bi maa war a man war naa war naa xelam xam nga am na ñaar mën a sëgal ba kooku xelam am nga droit xelam kenn ku rafet oto bu rafet moo xam nga kii tey jëm sol nii man ma ñëw sol ay salaf ma naa kenn dem sol wax dëgg yàlla waaye bu ma ko ñaanee naa xëyam lim sol ko dem uti ba daan alal bu lew xëy ko sol rek même soo jàppul tamit waaye mu defar waaye léeg-léeg nag nga am ñaan fu muy départ dama koy ñaanal yére bi ba ñaanal koo pare ba dim jël yére ko ñaanal ko waay waaye man fekk ma damaa gàtt kenn du la kenn du la war a rafet waaye gerte moom gerte boo ko solee moom dafay moom dafay gerte xam nga xam nga gerte moo tax moom dégg nga waaye man su ma solee donc su ma tuddee bopp day yëmbax su ma ngandee bopp day day day seere ma du baax kon ñu ngi sant yàlla waxtu bi yëpp gars yi nañu góorgóor baax ci wax yi bëri na trop beneen bi waaw waaw bu bu dee bu dee àddina moom comme ni ko bàyyi jàngale ci ci ci leeral bi mooy nit su ko sa der dëgg su ko sa non sa sa der dëgg dëgg dëgg ko yow ñu nga tare pour mën sant yàlla bul xool kenn tare boo ko doo sant yàlla parce que su bi bi kon dem dafay bokk moo tax doo sant yàlla alors soo xoolee boo tane yow xëy nga sant yàlla waaw gisoo oto sax oto sax bu rus ñëpp dee ba dund nga yokk alhamdulilah waaw am ñu dee def am ñu dee def ba pare nga ne la mu ci taxal waaye man tegal rek soo leen moom bii tax moom mu xeer la mu xeer la laa ko wax kër yi lakk nu mu tudd dekkal luus bu ne alhamdulilah gars yi lañ koy kenn waaw ba tey baax na waaye alhamdulilah yooyu ba na ca borom nag alhamdulilah fan sax doo wala nit alhamdulilah li si am dara lu ci daal alhamdulilah bu bëri la alhamdulilah foofu moom solo am na alhamdulilah boo ko doon solo wala alhamdulilah yëpp laa amul amul fu may waaw fan sax wala nit moom sa temps lañ koy rek moo tax alhamdulilah nangam nangam nangam nangam yooyu yëpp mu xeer la وأنا على الإطلاق لا يرد الحلق لا يرد الحلق يبتلو دك أنا كل مخير moo tax alam lu boobu la yàlla wax ne lépp lu gis ñu sabal ci alam lay lépp lu gis ñu sabal alam lay gis yit ñu sabal ci alam lay nga xam ne mooy mu nekk itlaq moo xëy yëpp ñu ngi so ñu ngi ñu ngi sosu ci itlaq boo jëlee itlaq bi nag wane kaata ratqat ni ñu ko muy diis sax naa ma laam yéeg xaa wàcc jaww taxaw di niin ndox mi taxaw di dee moom lépp ma xëy boo tootee lii loolu ñuy jël nii ma gën ko leeral ba ñëpp gis ci bopp xam naa la it la xadimul ba alhamdulilah xadimul baax moo tax alhamdulilah gars yi dañ déggul yàlla wax alhamdulilah faatiri samawaat wala nee na xott xanaa jamono yi xott gën a asmaan suuf faatiri samawaat wala shahid al malaika umnat naati masna xam masna mooy kan ak kan masna masna dafa am ku mu bokk du asmaan suuf mooy masna de asmaan suuf du masna guddi bëccëg du masna góor jigéen du masna ru ak yoon du masna parce que yii yii yëpp majaas la ci mas ci mas dëgg la waaye bu ñu lim daal moom xamoo ko jël sa ban borom kii nekkul ko kenn bi daal te ñoom ñaar ñu bañ ñu jëlee ca asam si la xaalal ramsatukul ñaar ñii la ñoom ma sax ñaar ñooy naan ñoo tax asam su am di lay si laay laay asam su bi yàlla yoon kër si daal moo tax ñoo ko ñu am wax yàlla ñun gëm na yàlla asamaan mooy yónni bi su koy seet ñii ma doon am bul def ma dégg ñu ñaar am ñoo ñoo ñoo muy daw. ay li ma ma cee daal. parce xam ne alaaka bi a la. xam nga alaaka nag mooy la. bët xam nga alaxara bët gis nga ak bët bi ngay war alaxara mooy boo tay ci ci kaw mi mi bee mooy alaxara parce que mën ko bët bu dekkee foofu la bañ xamal ko ci gën a alaxara mu xam ko asan bi nas naa bii nii bii nekk suurat Faatir mu muy dem mu muy dem bi nekk suurat Faatir alhamdulilah fadri sama dala jaari malaka bi musala wala jaari masna masna yi yooyu sa delul na xayile del ci ak cheikh ja ñoom waaw ñoom ñaar de waaw ñaar ñaar ko man nekk ñaar ñaar ñaar que asal suñu am am doo ko ñaari aset yi ñaar fee ñaar fii moom kay daal asal moom abar nag boo xam doo xam ñaari ak ñaari muy mas na kon sula asal tamit noonu lay doon ñetti abadaat ñetti asal asal moom rubo ni ta ya ni ta ni ze bi may sax ndax si gën waaw ndax si gën mu gën xaay ba ndax alxuraan na wax kër léegi yaakaar naa mu ngi bëgg a su ne waaw loolu la nekkoon léegi mbir yàlla moom bari ci mbiru àddina bari ci mbiru koo xam ni da nga bëgg sant yàlla mooy da ngay xool yow ñu la fay suuf bon nga ma sant yàlla mais mbiru yàlla subhanahu wa taala moom bari xool ku la suuf wala ku la fare ko boo ko dagal pour nga mën a sën lay jiw moom ku ñu fare ko muy dal ma xool loo ma topp loo may gis su topp ñee ko xam nga boo ko ñeexee dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay ñee ba bëgg niroo moom loo may ñeex li li bi dagal da nga ñee ba bëgg niroo moom bu jullee ba julli bu woor ba woor as as ay ki lay ñaaw ci at mi nga xam kan yéen sax ñëw bi yow yow yow yow yow yow nga bay day ñaaw xam nga ko ñaaw yéen sax ñëw woor yow nga bañ a woor te ñu bëgg a def mooy tar yàlla والقيل والبخل والحميل والسلطة يوم بنيو الأذن لي يا نياو لي لي رم نياو يو يا نياو لي كده نياو يو يا نياو ولا لا نياو يا كدولي يعني نعم، نعم، يا يا نياو war ko ñu ñu na bind bi dégg na yaangi dégg na tan non man do la yaaru wa yooyu yëpp ñàkk dégg ndeysaan wax dëgg yàlla yërëntaan saa mu kon yërëmal kon bu dee alaaxeral ki defaree ko pusoo yow de ko ñëwee pour nga mën a yëg ci ba xam ci yi nekk maa ngi gis ne du dëñ bi kayit bi mébét ma xaw sëñ waaw war nga ñëw nangu ma xaram maanaam ngay yéeg ci xam-xam yàlla ci li ngay jàng li ci yéeg li ci yéeg li ci yéeg li ci yéeg li bay el la mel bi si def tey mën xam nga nit su muusul di ñaan fenn parce que ñëpp mën a am li nga bëgg wax pare yàlla moom dara dara dara ci bopp nag soo buggee moo lo moo lo yow yaa ngi ni ci kër gi yow kenn góor bi yëngu yëngu yow liggéey sa bopp liggéey sa sa kenn sa sa di liggéey di liggéey nga takk jabar andi mu génne ceeb doom doy fi génne nga dem ba am fukki doom yaa ci biir kër gi yow la wàññi ko yaa ñaan na ko benn daa wàññi benn wàññi ko benn ko wala benn la nga ba léegi moo mel wane woonaka man nga may nga may ñëpp te wane woo dara. loolu nga ñëpp ñu xam nga wax par exemple dama ko <coughs> ne man làmp laa boo xam ne man Cheikh Tidiane maa taxal ñëpp bañ am leer ko man ba ñëpp am mu ko amee dans son leer daal di bañ. man na ko sàrri am. kon tëdd la ñu am moo xam tëdd te loolu def na ko de moom seet la def na ko de. waaw. saa bu ñu gis nii. waaw kon nag la yaram. mu nga def na ko de ku ne mel na ruur te mu wàññeeku. bàyyi def na ko de. dama la xool ba ma xool wàññeeku. ñoom ñoom buntu buntu mooy lan feneen sa buntu ma envoyé la affaire loolu la loolu la ngay def am nga fi nga fi nekk di sax sa buntu yow ñu doon la envoyé yàlla moom yónni moom kii du yow amoo sa buntu. waaw yow da ngaa a envoyé. waaw dëgg moom du xaar nga yow am buntu. dafa fekk moom day moo sax ci moom ñëpp amul. lépp la de toog bu ñu nax fii bu ñu doon na yëm yàlla toog bu ñu ko yëm na yëm wanax mu sës sës bala nga ñaan moom sës boo sa ñaan moom sës sës moom sës islam moom ñu sax boo xëyee dama liggéey boo xañee sës tuuti boo reer dafa ndékki aadama arwaa mooy nekk ruum mooy ndékki doxal dem liggéey mu ñëw ci arma dugg ci yàlla ñëw liggéey fii waxa ñoo pare ma alma sa ba yaroo moom ses mooy fanaw du du yàgg fanaw du yàgg ses kon yow nag léegi nga reer xol bi reer sëy du sottal médecin la médecin bi yóbbu médecin bi li mu wax ko topp dëgg bu baax te te doo ko doo feebar ku may feebar rek ñu wax bu lekk dëkkee foofu waaye neuf neuf lekk ñoo ne gën a neuf te feebar rek loolu yi feebar feebar dana bëri parce que dañu bëgg rek di ñuy di ñuy bon ba rek ñu ñëw nga tëj lu ñu won di won da ngay xeewal dama ñëwee rek ku doog rek ni neuf neuf neuf réew mi ñëw neuf di yeewal fajar nan ndox neuf fajar jëm nga xëddal nga ba sëñ bi daal nga nga tamit yow ko jar naa la benn pot ndox lay bàyyi nga dal mën ko jaral nga fi yóbbu sax neex ñun ak xeet lañ wax ne du du lekk uti xëy xam ne dox ñu ne du ci lekk uti xëy kon kuy lekk te ku dem ba xiis dara lekk moo baax te gis nga boo lekkee dara nii naka la xam rees wala desul mm-hmm. da koy bàyyi moom rees bu reesee di rees boobu itam benn bët dem fa war dem ci alcool léegi des yi di ko ci yaram bi day gëj day wàcc des yi du am ci yaram la nekk ci yaram ba nag woo waaye boo lekk ñëf bañ a fa nga ba feebar rek. Ah, feebar rek waaw moo tax lekkal lu yem naanal lu yem waaye lekk ba doon fut pot noo ñëw nga bëggoon a naan moo tax ba doon fërgee naan doon tëdd naan jëlee ma si ngoom si ngoom. pour ma pour ma def pour ma des ca njëriñ defee ay boissons kii gaz ak ananas foofu gaz ak ananas foofu léegi loolu warul sax di wóolu loolu nit ñi warul sax warul sax dañ ñu ne pompe désert bi lekk ba rek nit mu ne ko bàyyi. fekk na disoo bàyyi bàyyi mi day nekk ba day ñor xam tegal ko lekk fii rek te lekk mu gën day lekk lekk lekk lekk lekk lekk lekk lekk maanaam moom tëdd 나가 좀 오는가? 거기 잡고 마요. ganaar foofu muus ganaar ganaar picc bu suuree bàyyi nañ gëm yàlla picc moom dafa gëm yàlla picc moom gën a gëm yàlla garab yi garab yëpp picc ñu gën a gëm yàlla dëgg la garab yëpp picc moo ci gën a gëm yàlla dëgg la taw yi du taw moom day dafa gudd mu gën a tudd ndax amul solo bu dëgg dañu la nag lu ma jël gëstu ko dëgg la tënk na bu ne la nag bu fajee jot maa ko ma ni bon man laa war a jaar laa war a jaar wër na fan la war a jaar xam naa de bu dee yàlla bu dee yàlla mën a dem naa fër dem damay sori de bureau yi. ah kenn nag yaram amoon certainement nag. damaa la bëri mën na bëri suuf. damaa la bëri. am naa leen yaram la wut. yaram wax dëgg gis naa may naaw. may naaw rek uti yaram rek. kii ëpp léegi yaram bi yaram may lekk. aywa kon gaa ñi ñeeta baax na waaye da ñee ku la man ci xam-xamu yàlla pour nga yëg pour nga mën a yéeg dafa na trop ku a waxtaan yàlla ku a sikkar ku xam yàlla loolu ñee waaye ñee bu ko ñaan nag waaye dafay nga ko sax nag ko ñee ñee ko loolu mooy tas bi ci yi doon leer ko leer moo doon ba yaakaar naa ko leer pour léegi voilà eh, bu hmm? ah, kon nag. wala da ngeen gis ne leen yéen ah, ah, demal. kon dafa mel ni tey yaakaar naa boobu la ñu ci aaya jëm ñu war a démarrer tey wa li kullin ja'alnaa mawaaliya mimmaa taraka ba léegi mu ngi layal jigéen ñi yàlla nee na wala kullin ñeel na képp kenn ci góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk ñoom jaa jaa naa dafa ne la mawaalee way méngoo yoo xamante ni dégg nga maanaam ñoo xam ne dañuy jël seen wàll ci miraas ñu maas yi nga xam ne taraka ba ne alwaali yaa ñaari way jur wala aqrabun aw way jege ñaari grand frère yi yooyu yëpp jigéen ak góor ku nekk dana am cër boo xam ne dana bu ci am ñoom ñooñu rek mu yokk fi loo xam ne rek ulul xa ulul arxami baadum awlaa bi baadin moo ko fon ci liñ wax mooy walladina ak gaa yi xam ne itam nga bañ koo dugal ci biir mbokk rek ah façon naa ay maanaam seen ngëm mooy xolofa ala dañ leen wax dañ ne am yor xalif ma ñëw na la yow sow misaal tey dem ñi damm ka waat ñu sama deret ma sa deret seeri seeru ka sama seeru mooy jotoon deret yu demee noonu xar bi xar bi sama xeex mooy sa xeex sinu sinu ka sama jàmm mooy sa jàmm yu demee noonu xet mi xet mu ka si ma ma màbbu neen la ñu fasante kóllëre boobu xam ne ku ma laal rek laal na ñooñu noonu xolofaaw yi daan leen donnante lu njëkk aaya bi ñëw ba ulul arhaami ba'd mawla bi ba'd ñooñ bokk jege ñaale yi ñooñ neen yi ñenn a yey ci ñenn ñi kon bi wàcc na xam ne ñoo fasante kóllëre ci géej ñooñu itam fa atum na ngeen leen jox na seen cët lii moom aaya bi waaye ñu ne firee leen ko follee leen ko la aaya bi waxoon ne mbokk daal moo gën a yee si miraas waaye nag dana continuer nag fasante kóllëre googu ci dimbalante dimbalante ko ci diggante bu tooñee di demee noonu yàlla na ina laa nañu yàlla caal mos dañ di nekk shahidan di aji yër di aji seede alaa kulli shay'in ci bépp mbir foofu yaakaar naa day nag bu paree ñu ñëw ci arijaalu qawwaamuuna alal nisaa kon daanaka indi sa nag ñu ngi door laal benn barke lu nekk ci benn aaya alquran la ma daan wax démb ak tey alquran waxu yàlla la ñun ay jaam lañ dañuy jéemantu kéemtulaay yaa wërsëgal ñu mën cee bànneexu ba dogaloo ci ay jaam yàlla ngir suñu borom moo xam ne mu neexee ni mu sellee ni nekkee dëgg te dara mën koo dindi te mu ngi wax ne wali buli jaaru na wali ku la néegu ku nekk def ku la néegu waaye moom xam naa waxuma sax da waaye yéen ñëw jël ñëw jël xatul xam mais ma taraka ci la bàyyi na ko al waal daani ñaari waay juróom ñaari waay juróom dañu bàyyi wala xar boon ak jege ñaari ñu tëdd bu su gaa yi xam ne ñoom na xaqada am nañu pas-pas lante ay amar ak seen ndeyjoor maanaam comme ni ko waxee léegi su ma dee nga def ma nii ma doon ma nii ma doon ma nii comme ñu de dëlaat dëlaat dëlaat faatoom na lañ jox ñoom ñooñu tamit ne su boobu seen cër seen cër seen cër waan ko ginnaaw nag yaa daal kaana mos dañ di nekk sayidan di seede à la plus ci bépp mbir loolu mooy aay bi loolu mooy wax bi wax baa ngi nii nag waaye wala ku ne jaar naa képp ngeen def nañu moo leen ku ñu méngoo yaakaar naa àddina bi képp kenn ci ñun yaa def na ci yow am am si cër bu ne ku méngoo sa bopp gi am na ku méngoo seeraan bi noonu soxal nañ ko. loolu pour jàll wóor ngeen dem. imaam Paraka gis nga moo jëm moo doon laal ak yooyu imaam Paraka bàyyi ko waa si ñaari waajur ak yow ñaari waajur mooy kàlla kàlla bu ñu xamee waajur yàlla bi mooy ndey ak bàyyi ndey ak bàyyi saxiir yii boo ci amee tey mu faatu ñu koy miraas am nga ci wàll bu dee góor am na wàll jigéen am na wàll léegi-léegi nag ñu bokk am wàll am na akar góor yi bu dee xaqiqa it loolu tëddi suñu waajur ci xaqiqa yéen daal Muhammad sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane suñu waajur bàyyi ñu suñu waajur ñun sa ba fekkee ñoo ñun ñoo nañ ci jamono ñu fekk mu faam ñu sax moom du faatu na ngay faatu dem na daal maanaam bàyyi fi nag xalal di bari di bari alal alal di bari su bari suñu kilifa yàlla jamono ñëw mooy miraas alal ja soo ko nangulee dafay delloo sa àllu bàyyi ja mu delloo lu ne sa bàyyi am alal yëpp mu ngi nii ñu ko te ne lu lu mu am rek mu ngi léegi nag foofu bon yaa diggante benn jigéen mooy du fanaan cunt bi rek fanaaw rek amul baqaaw buñ cër lay am ki boole fanaaw ak baqaaw cunt dafa xam yonent bi xam ay xam ba salawaatam moo am ñaari cër am cëru fanaaw am cëru baqaaw foofu mooy ñaari cër yi wala xar góor yi nag jege ñaari yi tam foofu mooy ñaar islam la woon jege ñaari la la woon bokk caaxaay am la doon ci moom Ibrahima jëriñaayal la Moussa jëriñaayal la ñoom ay jëriñaayal la. ay yéen a ko noo ay. ay akal bu rëy ñii akal bu rëy ku nekk amul loo doon ci moom. boo demee ci fay ba ne boo demee fay na boo demee fay na fay fay ba fay jeex. su nekk am loo fa doon moom akal bu rëy amul jëriñaayal la. wasa ak gars yi tam ne ak def nga ñoom paslante maanaam li yàlla wane am na yàlla wane. na ngeen gëm yonent yëpp yonent yëpp na ngeen gëm su ko defee bu ne daawula daawula pas-pas nga am ci moom ne mooy xalifa yàlla aadama ah, xalifa yàlla am na ci pas-pas waaye xam nga daawula amul asal amul abat aadama ah, amul asal amul abat kon lu jege ñaar liggéey waaye pas-pas pas-pas baa tax ndax da nga pas ci lislaam yàlla ne gëmal naa dafa benn aadam gëmal pas-pas xàppale bi ci moom xeex bi xel moo tax bàyyi leen fii ne man man ne man maay daw danañ fii ne moom mooy daw te moom mooy daw parce que moo am asu am ko demal téléphone tuus am téléphone luy firi téléphone laaj mooy lan fil ardi yàlla wal xala ardi te fi ñu toog ne xala ardi أيوة في الأرض في الأرض يجعل يجعل في في الأرض يجعل في الأرض بالفعل كم فصل كم يرم ما يرم في الأرض اللي كي كي يرم ما يطلع كي ما يطلع يلا يلا فم قد كم أمي خلفه لا لا ولولي dégg nga xam ngeen. kon loolu mooy affaire bu ne yi. ak ñi nga xam ne ay maanaam seen ñooñu ñëpp nag waa tool ñu ne jox ñu sax ñu ne suñu cër day sax ndax gars yi suñu cër joxal daawoo du cëram joxal kenn ko ñu dem cër. ñu naan nag yàlla bi ne fii daal taal moo dañ di nekk ay ko suñu ci lépp ci seen lépp day sax يسخر من شيء حال لنا قط بحر شيء على كل شيء كثير لك كل شيء هم يسخر من شيء ما يسخر من شيء من يدار ماما حال شيء من شيء تجاه لنا شيء من شيء واحد wa qablahu mooy yàlla ba boodoo mooy keneen ki sama daat na lii ku doon jàll moom xaw na lii ñoom dara moo ko doon xam nga gars yi xam gars yi picc yi picc yi dafay ñëw di ànd ak galaar yi man soo bokk ngeen am ah, ñu koy benn am yow am doo am waaw teg am na ba mbagg am tànk am tànk ngay cob mooy cob. waaw problème dañu ko bëri nañu daal nañ cob rek. gis nga bu ñuy cob cob ba mu yàgg rek ciir ñëw ciir ciir ñëw day këf ci ceeb ci ne ko non man ñëw ko mën kat. yaa sax bokk am moom ñaari bokk la moom su dee moom ko moom ko loolu damay aar fi mu tegee xaami ci mbooloo bi day wax ba ñëpp wa lépp luy kenn ci kële ñoo xam ne def nañ moom wax nañ ko leen méngoo ñoo xam ne bàyyi na ko ak wàllu ñaari way jur yi nga xam ne ay daal yi wala seen gaa yi xam ne aqad ak tos na ak ñoom ay moseen dajor waxtu nañ nañ jox ne suba seen cër nga nag yàlla mi def lii daal kaa nekk na seen misaal ci lépp lii moom picc picc bi picc bi kilo moom lii moom dañ sa bàq ay nag boo duggee nag ci mara rek gaa yi may tax na la ah loolu yëpp foo jóg loolu mooy bëgg a jël benn yow benn nga am bii nga am ba nga am ñaar mooy benn nga bëri loolu nag dañ koy ñaar am am na am na nii mel mel mel su ko jigéen benn la comme yaa xamul la man xam naa ne xam lii yaa naa balaa am sëriñ bii ànd ak yow ba am ngeen benn te mawaale yooyu naan akar boon yooyu nag su ma ne mooy nuhul tey mais bii da ngay dégg loolu akar boon te yow yàlla xam na sa akar boon la nun nun yàlla xam na xam yow yàlla xamul yàlla moo ne waaw sama la sa utuloo yow yaa yow yaa def na leen te yàlla mooy jiw sama war ban ay rab yi yàlla jiw soo yàlla ne ca seen borom ñu ñu yow def rab xaar rek micro bii micro bii dañ ko yar ci ñuy wax courant courant moo yor courant bi yor suñu yar ko ba protocole garab ko ba tey micro ko ba soxla mu wax ko ah, ah, ah, jël ñoo kër gii suma lool rek suma nekk fële semence bi nekk fële dina ba fële xeer yi fële picc fële maso ba fële maso bi nag ñëw di ko ràmb di ràmb mën na ding ding la di ko ràmb piis bii benn piis la dem añu di ko taree xotti ko xotti xotti xotti di ko ràmb di ko ràmb ba mu seen mu ras lii may ràmb ràmb yaa may ràmb kon yaa may ràmb taxal ngeen ah nit tamit fee nekkoon yàlla di ko ràmb di ko ràmb di ko ràmb comme nit ki nit mu ràmb nit ñu ne benn nit muy ràpp ñaan nit di ràppante di ràppante di ñaaw di yàlla ba nañu bëri. aleen rabbi yi subhanahu léegi nag bu fekkee la jël nag ruuxu dugal ci yaram di ko ràpp bàyyi yaram am ànd léegi nag muy wërsëg nag dégg du du wërsëgal nooy du wërsëgal kat du wërsëgal gaay du wërsëgal loxo yi ñu jàpp ñoom sakkara ñoom unsi ñoom dugub ñoom tànk ñoom kenn mën a yàlla dina wërsëgal ba xam ne ñu rab nga gars yi loolu mooy affaire boobu yëpp ak pas-pas ñaar la ñetti mbir bi am na ak ki nga xam ne xaqada ay manoon mooy suñu suñu xaq bi nii mooy solution bi nga xam ne léeg-léeg nga ñàkk léeg-léeg nga am xam nga léeg-léeg nit moom dama yàgg rek après bi dee du doon la doon mu yàgg rek mu fàtte tëx kon léeg-léeg nit doon mu tëx wala mu ubbi wala mu lu wala doon dara waaw wala mu duloon dara yeneen nit ki dama yàgg mën naa wala loxo yi xañ du doon dara lafañ bi doolu neex la wax dina am ko yokk yokk foog doo doon la fos mais doy doy kon ne a loolu lafañ lafañ loolu gumbo gumbo luur mën luur mën naa ko yàlla kon ay bi mu ngi noonu mbokk yi wax di yàlla rafet na donn léeg-léeg nag nit jur la te xaram ci yow nga donn ko léeg nit jur ma xaram donn la ah nga mën ngaa am bàyyi mën a géej la boobu doo ko doon. waaw waaw mën am doo mën a géej la. twenty better. Ata lela yelo ngambai, ngambai, ngambai. Ah, dega na vai. Kogon tong tus. Dega na desi tus. Tau eh kogon na. Ah. tu. doon dara la war nga am waaye kon même koy boobu doon isa ma yàlla dégg dégg allah yi dem kula xare boobu allah dañu mbéeg bi jeere ni ñooy naaw suñu ni picc ni kaw kala ke dara yow taxaw ne subhanallah koore nga ko te yéen tam sax waxtoo kooree nga ko doon yaa ko rek kuréel sa tànk doon kuréel sa yooyu doon léegi wax dëgg képp kuréel Cheikh Tidiane doon ci mu dara ko nekk kuréel yónni lu doon xam nga xale yu tamit ak ak ak ak ak lii xam dafa leen doon xam dafa am loxo yu yu yu àll gis nga julli koor asaka yi boo ko doon doon ne loolu du àll moom loolu loolu la yàlla man loolu sa àll la yem kon moom adam jox xam nga xàll moom moom doo ko doon moom lay ko doon seetal tam laa suñu suba kon wóor sa te loolu sa àll la moo ko jox la ko rek waaye xàll moom doo ko doon dëgg la loolu sa àll la waaw waaye sa bàyyi doo doon kon ñu sant yàlla dafa mel ni seen jot na waaye mu ngi neex tamit ay bi ñu bëgg a dugg dafa xaw gudd di am xaw mën a alal ni sax ay neexal na waaye di am nag léegi day ngan de ci kanam jigéen nag léegi sax xool ko waaye dugal ñëpp nag ah, ay ko weddi kat hmm? dugal ñëpp de am ko dee xam ne jigéen la dëgg la dëgg la waaye benn jaay bi. mi yi ngeen jaay. léegi ci góor yoo xam ne bu doon saa rek bu doon saa rek firaaw na ah seetal la woon te bàyyi moo tax ñu naan bi hindakal bayta ci jigéen doo ko am boo ko xamal jigéen loolu rabbi indakal bayta ndax xam nga dama xamul léegi ci àjjana ma xam ne daa ñuy ñu àjjana boo jigéen moom loolu wax jigéen maanaam dañu may àjjana jigéen da koy wax waaw yaa yàlla koo di ko war a jigéen yéen may may na àjjana koo ko ko war a jigéen daal la xëy na jàmm la di fàtte àjjana lay dal waaye ay sa kële ñu ngi ah xaasin def na rabbi ba pare yow yaa it na lii indaka mu nekk indaka ci yow koy nekk xam ne ci biir indaka mu du jeexati bay bi ci yàlla moom du jeexati xajal ci ajamu day jeex ku ne ala fan rek koy jeex fexe wala suñu gën a kanam la ko woon ku ne ala fan ba yàlla suñu yow kan wàccu ma la mën a indaka nag ci wàccu bi. mais tamit wax yu baax. moom waxu jigéen ko góor la. moo tax ñeenti jigéen ñoo xam ne ñëpp juróomi jigéen ñoo xam ne ñëpp góor la am na. ndey. ndey ndey Xadija. jigéen la waaye góor la. mu rab bi la moo yor ko tedd. doom ja Fatima góor la. awul suru ab bi. Mariam góor la. moom moom moom moom gëm la ko yàlla wax dina xam ne kii moom lu nga asi moom wax naa ko dégg ñu góor la te Aïcha kóor la yàlla moo ne yum sa moo suuf yi anaa sa yéen góor ñi yéen seen gaaw a xam ne góor mooy sax fekk sëñ sëñ mooy góor. la kon day as morom dara du ko di kon ñi juróom ñi ay góor la ndax juróom ñi ku nekk góor am na am na koo xam jigéen la ne ko gis ne lan ba foofu fu mu dàqee bopp la ko te néew du fi du fi alxuraan noo waxoon ni la ak arab wax yàlla yow da ngay juum yéen seen doom yooyu ngeen gëm nañ ko gëm rek. kii yow yàlla ba yàlla defal néew dafa am. yàlla dafay continué di wax nga bëgg jël néew dëgg ci laa ko. parce que ay di juum. moo tax lan dara nga moom ñëpp la ci xam. ñoo xoolal nankaan nan ngay dàq ba foofu la saxal la ko dégg waaye ba jàng da nga jàng dëgg ba ma jox la ma jox la ma xool day dàq fa day dàq day dàq saxal lan tanaalul. ngir la du ma nangu seen baax. moom kay moom foofu mooy saxal nag comme duñ baax moom safar lañ def ba mu ngay am baax nag ataa. dama nangu ma saxal. lan lu mu nga làkka. lan taray wala kin. waaye lan day dàq day saxal. am na am na mbokk na moom day dàq moom foofu mun a am na. ay nambe nam fay salaatan sali saatan lam la takun waaw lu fagal loolu boobu nga wéy du comme daan tudd loolu waxal waaye wala loolu loolu ko yëg waaw foofu mënu ko lan matal boobu nga nag foofu nga leen di gay ndax ko mën a dëri boobu boobu boobu boobu soxul waaw moom day tax dafa tul fan taw mën a dëri ndax tam taw naa moom sama boobu bu ñu defee il faut pour nit du wàññi yi bu ñu affaire du wàññi parce que mbaax yi am yàlla yëpp muy Sénégal Sénégal moom wax dëgg yàlla. billaay mboolem yàlla dem baaxul Sénégal. moo tax bàyyi dara Sénégal. Sénégal. yàlla mi tëkkal sa tur Muhammad mooy yàlla la. yàlla sax waxi moom sana xëy na xaasa. xasal na ko sotti xalilu ba alxil kalaaya pour wéy comme xam nga naan taxaw mbar am naa ak programme am. xëy na xëy na mu baax. Sénégal yi doon Sénégal yooyu. 자라다가위험이있다고한가한가믿기안되는무스한가빨리허락사가이거야무슨믿기마음믿기니대유어제는나가는가이드안쓰니까무슨배우나가서뭐하다한배가소나소나받는거하다 kon nu ñu gëstu bi nekk Sénégal day yëpp ñu may ko gis tey kon ñu ngi sant yàlla baax di am kontaan de trop ci jaam yàlla yi toog fii toujours di am mbégte ci yàlla mi nga moo ñu may kàttan ak tal ak fekke am na ko ne am na tal na fekke na waaye fettul am am na ko am tal ko fekke na ko ak bu fitu dana du woor waaw am na ku am kattan tal waaye fekkiwu am na koo xam ne amul kattan tal waaye fekkee na amul kattan tal waaye fekkee na am na ko am kattan moom tal fekkee jëfee te yàlla boo ci mbooloo boobu te it am nañ ko la yàlla may ko mel kenn am ko waaye yàlla mën na ko mel tànn ba toog ko fii mu ñaan yàlla ñu ñuy naan